premier ministre bi di Ousmane Sonko moom moomee nag daal nay daal di publier ab arrêté niki rekk démb ci altine ji fukki fan ak ñett ci weeru mai boobulee arrêté sax nag dafay daal di xam ne dañu daal di bàyyeendigum rek bépp travaux de construction ba nga xam ni daal nay am ci li nga xamante ne si nag moo di sur les dépendances du domaine public maritime fii ci région bu Dakar yooyu les mesures nag mu daal di koy jël ñu wax ko daal di amal ci ni mu gën a gaawee loolee sax nag wax a duré lu toll ci ñaari weer loolee nag bokk na ci li nga xam ne nag dañ ko jël ngir rek mën a daal saytuwaat li nga xam ne nag moo di tiit de propriété yi wante it anam ba nga xam ni moom lañ daal di occupé li nga xam ne nag moo di dee terrains maritime boobule arrêté sax ñu daal di koy numéroté bu nekk 0066 32 loolee nag dafa daal di visé fas yéene établi benn commission ad hoc au sein de la primature ngir rek mën a examiner li nga xamante ne nag moo di la légalité want it li nga xam ne moo di la conformité des titres. et d'occupation dans des zones stratégiques boobule commission sax nag ñu ki nga xam ne moo ko daal di wax a présider nekk ministre secretaire général du gouvernement moom nag mu ci daal di coordonné ak ki nga xam ne moo nekk le ministre des finances et du budget avec le ministre de l'urbanisme des collectivités territoriales wante it de l'aménagement du territoire qui assurera li nga xam ne nag moo di le secrétariat boobule commission nag ñi nga xam ne ñoo ko daal di composé ñi nga xam ne ñoo nekk membre bu commission boobee sax nag daanaka dina am trois représentants yu assemblée nationale un représentant du conseil économique social et environnemental benn it représentant bu haute collect bu haute conseil de collectivités territoriales de du ministère des Finances et du Budget, impôts domaine, cadastre, wante it deux représentants du ministère de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. benn représentant bu ministre ministère de l'environnement benn représentant aussi bu ministère de la justice le gouverneur de Dakar wante it des représentants des collectivités territoriales concernées wante it le directeur général de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol di waa DGCOS di waa DESCOS le directeur aussi de l'agence nationale des affaires maritimes di ANAM benn représentant bu ordre des avocats du Sénégal benn représentant bu nekk de la chambre des notaires wante benn représentant de l'ordre des architectes du Sénégal représentant de l'ordre national des géomètres d'experts du Sénégal représentant du laboratoire national de référence dans le domaine du bâtiment et des travaux publics wante it mën nañ ca dolli ñi nga xam ni am nañ compétence ca boobule mbir boobule commission sax nag daal di koy fas yéene séddale daal di koy def ñaari groupe de travail groupe bu njëkk bi nag boobe nag dafay daal di porter sur les actes juridiques et techniques ba ca topp nekk groupe de boobu tamit dafay daal di porter ci li nga xam ne nag moo di sur les impacts sociaux et environnementaux ba tey ca boobu boobule communiqué article 3 ba daal nañu daal di xamle yooyu li nga xam ne nag moo di travaux yu boobule euh, commission nag devront être sanctionnés ci ab benn rapport ba nga xam ne dañ koy daal di jébbal la très haute attention du monsieur le président de la république. initiative boobe nga xam ni premier ministre bi Ousmane Sonko daan na koy daal di jël loole nag day wane bëgg bi nga xam ne gouvernement bu yees bëgg nañ ko ngir rek gën a doole li nga xam ni saytu bi nga xam ne ñu ngi koy daal di amal ci rek anam gi nga xam ne ñu ngi koy daal di exploiter terrain les terrains maritimes yi nga xamante ne si nag dafay bëri souvent nag. ay euh, problème su jëm ci rek yi xam noo di propriété wante l'utilisation légal ba tax nag li nga xam ne nag moo di travaux yi ak construction yi loolee nag dinañ ko daal di bàyyi ndegum ci ak ñaari weer ba tax rek ñu daal di mën a saytu rek ban anam rek la ñuy daal di amali yooyu la travaux ak li nga xam ne rek moo di occupation terrain yooyee